ci ci kàddu yu waa ji te yore li kayit moom moo enlevé doom ci doomam la mom moko jur. Hmm. mais nim ko defee. Hmm. moo ñaaw ba légui ni kenn xamul fu xalé bi nek te dafa wara a dellu jàng soxna si daa am fii jëkkër dafay amaat jëkkër. Ah, waaw ba ma fi yenen dom waaw ba am fi yeneen mais dom yooyu mu fi am ñom ak xalé bi xalé fam bi ab ci ñaan mi amul jëkkër de. Ah. doom yi mu am. dafa am ay dom yi mak avant xalé bi mu enlevé. d'accord ñu déglu waji wa ñu déglu waji mom fu nek bitim rew waji bitim rew la nek. ay ci kon waaw dama nekk Paris depuis depuis presque deux ans doon Ligue. sama doom nekk Sénégal di jàng école ak alxuraan ci sama yaay Saint-Louis Dakar vacances yàlla mi dara taw mu waroon ñibbi début octobre parce que école la waroon ubbi yaayam bi ko jur di tubaab de Nadia Anne-Marie Cazenave de Sénégal depuis 13 ans ak ñaari ak ñeneen ñaar doom yu mag donc maanaam yaayam dafa am yeneen ñaari doom yu mag bokkul ak sama doom ndax sama doom mooy caatam donc yàlla mi dara tawul yaayam woo sama yaay ne ko dama bëgg gisanteeg xale bi ba laata muy dem donc ñu waxtaan bu juboo sama yaay wax ma ko ma ne ko amul benn problème ndax ñu gisee ñu waroon gisee kàccaa donc ñu dem kàccaa sama doom Jamila Aïcha dem kàccaa ànd ak sama rakk bu jigéen Asi ànd ak sama ak bu jigen muy trondom mu dem mu tase fak yaay ji donc ñu bàyyi len mu ta ñak ñu bàyyi len ñu wét tok waxtaan ka fure lek donc sama dom, ak sama ak bu jigen ak yaayam ñoo togon ñoo nekkon ci bir lolu yaayam dafa ñoo and ak ñaar nit ben tubaab bu yor kat kat ak beneen sénégalais tubaab bi fop xale bi daw ak mom sénégalais bi door sama rak ba mox ko ba gañ ko sama sama xam-xam bu gatt muy enlèvement bo xam c'était organisé muy lo xamné c'était prémédité muy lo xamné xalat nako. na mu def ko mu jeudi mu tombeek le 6 octobre 2016 chez Katia bëccëg naru kam daw ak xale bi dem Deug la yayam la mais jëf bee ñaaw jëf bee ñaaw ci kaw parce que lo gis dafa am lu ko jitu. li ko jiitu il y a deux ans dama dama nekkoon Sénégal ñu woma ñu gis nañ sa doom Kër Massar ndax sama dom laata muy nekk ci man ñaari dafa nekkoon ci yaayam këru kër ñu ñu fay taxawaalu néegoo nit ñu koy loué appartement appartement ñu koy loué bu ñu loué ñaari at bu ñu loué at wala wala 6 mois daw génn dem dëkki feneen dëkk nañ sama kër nijaay medina dëkk nañ sama kër tante castor dëkk nañ sama ay kër mbokk sama kër am di jàmm ma dem ba xam ne lii munta nekk ndax xale bu jigéen boo ko bëggee yar ci yoon siraatul mustahim bëgg ko teg ci yoon mu koy teel a récupérer teel ko canaliser teg ci dafa am ay mag yu jigéen te day xool ci magam yu jigéen seen nit ku nekk booy wax da ngay wax sa aqulaay taala booy wax da wax sa diggante ak yàlla seen yaay jàngal leen fen jàngal na leen lépp ci boutique au boutique jàngal na leen ñuy manipuler nit ndax ay tubaab lañ te xam na ne yenn Sénégalais yi dañu am complexe tubaab donc ci loolu lañ doon joué di lépp boutique yi fu ñu koñ buñ dëkk lépp ay boutique loolu it am ma récupéré sama doom donc comme ni ma ko waxee dénk ko sama yaay muy jàng normalement dem école ma koy toppatoo muy jàng di lekk di naan yàlla mi dool tawul composition base moo jël premier seen classe donc mu ñëwoon vacances Dakar.